fadalatun ndesit lay doon maanaam mën naa ñàkk ci jumla bi teewut jumla bi dana nekk jumla bu am njëriñ waaye bu dee baat boo xam ne mënul nekk ci jumla bi du mën a nekk mafhumum maawoo baada waawin gannaaw waaw riida bëgg nañ bihaa ci waaw googu tam si sa teg si laalal maa yëtti ci àndoo dafay ñëw ci gannaaw waaw goo xam ne nii ànd lay firi lay firi ànd ak nangam masbuqatin di luñ jiital bi faalin ci faalu aw maa wala nga xam ne fii nekk na ci xuruufu xarafi faalu mafulu maawu faalu da loo xam ne xarafi faalu mën ca wa maanaaw ak maanaa faalu te mooy ismu faayil ak yooyu kon tur lay doon ndesit lay doon si jumla mën cee ñàkk dafa ñëw gën naa waagoo xam ne ànd lay firi fenlu daf koy jiitu wala loo xam ne xarafi fenlu ak maana fenlu yi mën ci juróom yi bu ci dajee mu xol maaw tur ndesit waaw guy tekki àndoo jiitu ko fenlu jiitu ko wala loo xam xarafi fenlu jiitu ko ka misaal mi mooy surtout dox naa woon nii la ànd ak dex gi waaw gi maa lay ànd ak surtout fenlu la dégg nga nii la ismu la waaye ndesit la ci jumla bi moom na see ñàkk mënoo nga wax surtout rek wax ji mat wala nga ne wa ana man saayirun aji dox laa wan nii la ànd dex bi wan nii la ma maawu lañ koy firee ndax waaw moo ko jiitu goo xam ne dafay tekki ànd te moom ndesit la ci jumla gi fenlu jiituwu ko waaye la ko jiitu xarafi fenlu la yore ak maana fenlu saayirun mooy asiiru rek maa ngi dox kon maanaam fenn la yore taarifi fenn yi moo fa nekk léegi nag mu ne génneel yi nga xam ne mënu nekk ma foolu maaw mu ne sharxa wax nañ la ma foolu maaw lañ la njëkk wax mooy ismu lay doon mu ne xaraja génn bi zikri ismi ci tudd ismu al fi'l mansub fi'l guñ nasab baadal waawe gannaaw waaw xam nga léeg-léeg feew ñu ne sax nasabu gannaaw waaw maay ya waaye feew gi sax an moo ko ne nasab guñ nëbb nëbb gu war gannaaw waaw ko duñ ko tuddee ma xoolu maaw de dañ naan feew la guñ nasab la gannaaw waaw fi fii qawlika ni sa wax ne laa taakul bu lekk ko jën wa tasraba ànd ngay naan ngay naan alla ba na soog doo wax ne tasraba ma foolu maawul de parce que feew la waaye danaa feew mu daal man suum bi an mu mu wujuban baara waaw maay ya fa innahu naka wawge ala manal jami mana mboolola ay e la tafan bul boole la la tafan bul def haga bi ma finlika àndak sa def haga bi dafay boole bul def bi ak bi manam bu leen boole ñoom ñaar kon waaw gi maa iya la waaye wala usamma duñ ko tuddee mafonle maaxu li kaw ni ngi nekk gim nekk lay se nekkut isman di tur tasraba <coughs> du tur kon mafonle maaxu di ci njëkk tur lay doon bu dee nag waaw gi tekki maa dafa ñëw njëkk fi'lu nasab ko te an moo koy nasab booba xamal ne fi'lu boobu fi'lu guñ nasab la ci an guñ na bu na gannaaw waaw ga waaye doo ko i'raabe mafuulu maahu ndax du ismu li du nekk du ismu wal jumlatul xaal yi jumlay xaal jumla boo xam ne xaal la te jumla bu ñëwee gannaaw maarif rek xaal la jumla nag mooy fi'lu faa'il wala boobu mubtada xabar duñ ko tuddee mafoolu maaw di la yore maanaam maanaa maa ànd duñ ko tuddé nahwa diki jaa dikna zayd zayd wa shamt tambir mum jant bi talatu aji fenk la fa inno naka mom xam nga zayd maarifa la kon jumla bi ñëw gën a am xaal mubtada xabar la waaye dafa nekk fi maxal nas di hal fa innahu naka jumla bi wa inkaar dina nekk na al maana maana balaa qawlika sa wax jaa dikk na zeydun zeydu maa tudd sam ci ànd ak fenk ak jant bi loolu lay fi zeydu ñëw waaye ci jamono bi jant bi fenk kon waaw gi waaw maa yëra waaye asamtu taalaatun kenn du ko inrabe ma foona maaw illa an zalika lu mooy ne loolu lay si ci tur ndax jumla bi du tur walakin na waaye moom jumlatun jumla la kon moo fa maamu ismu lay doon waaye du nekk jumla du nekk tamit fi'lu kon noonu la ismu lay doon mu bi zikri fadla tudd guñ tudd ndesit dana génne maa bandal waaw yi nekk ca gannaaw waaw fii ndax ci kem wax gi nga wax ne istaraka bokkaate na zeydun zeydu wa amrun ak amr zeydu ak amr bokkaate na baatu istaraka ñaar rek ko ma def baat bi nga xam ni foofu ñaar a koy def waaw gi ñëw gannaaw ga waaw googu waaw atfu la waaye duñ ko tuddee mukk bu kenn mënu ko inlaaj ma fona ko dafa jomm Zeyd ak bokkaat nañ boo ne na Zeydun wax ji du baax kon wa Amrun gi mu ñëw fi kon kenn mënu koo firee ma ndax omda la kenn la ci wax ci mun fee ñàkk فإنه لك أمر عمدة كندرة لأن الفعل عندك فعل بلا يستعني دودو يلوانو كموم لا يقال دنيو استرك بوكات زيد زير نوب لأن الاشتراك عندك بوكات لا يتألد دودو إلا بعد سنين لمجي كناو نيار أمريكا كن مفهوم ما هو فضل لي لي دون تي واحد يندسك bu nekke ismu bi ñëw gannaaw waaw gi dafa nekk loo xam ne mënu ñàkk ci wax ja su duñ ko tuddee ma xool waaw gi firuun ma ànd ak man koo taawil de waaye naan bokkaat ñoom ñaar ñoo ko bokkaat ba bi zikri waaw tudd guñ waaw tudd guñ tudd waaw génn na maa baada maa li ñëw gannaaw maa bu fekkee dafa ñëw gannaaw maa kenn du ko tuddee ma fon la maaw ndax gannaaw waaw lay ñëw kon loolu takk la ci kon mu nekk juróom benn saatu sax ismu lay doon ndesit la ñëw gannaaw waaw muy benn waaw guy tekki ànd ak muy ñeent fenlu jiitu ko wala xaraf fenl juróom benn yi ngay jàpp kon bu fekkee dafa ñëw gannaaw maa duñ ko tuddee ma foolu maa fii nax wi kem nga ne jaa ani dikkal na ma zeydun zeydu maa amrin ànd ak amr amru du ma foolam maaw mukk na dafa ñëw gannaaw maa wa maa baadal baa yi ak li ñëw gannaaw baax xam nga baax léeg-léeg mu ñëw di yore maanaam maa baa bu yore maanaam maa tamit li ñëw gannaaw duñ ko tuddee moo foog ne maawu fii nax mi comme soo nga ne bien tout cas bien jaay naa la ak daara kër gi bi assasiya ànd ak bagaasam ya baa gi maa maa yee lay ànd ak lay firi ànd ak mhm. waaye asaas bu ñu ko firee ma xoolal maaw ndax ñëwut gannaaw waaw wa bi zikri iradati tansis tudd guñ tudd ne dañ ci nam mu bind maanaam teg si laalal maa yee ci ànd ak génne na naxoo comme nga ne jaa dikk na zaydun zayd wa amrun ak amr za urida bu ñu bëggee majal at mën naa nekk mafoolum maaw mën naa nekk mafoolum mën naa nekk atuf maaw waaye bu dee da ngaa wax ne ñoom ñaar ñëpp ñoo dikk xam nga atuf moom mooy acte ku njëkk ki moom moo ku ñaareel ki benn la jaa dikk na zeydu zeydu wa amrul mooy zeydu dikk na amru dikk waaye ànduñ nam moo ci ànd loolu atuf la su boobaa comme que waa gi nam moo ci almaiyatu àndoo duñ ko firee mafoolam maaw waaye boo ko ci nam moon ñu firee ko jaa zeydun wa amran nga na musi ma amrin baax na kon waru faat fii yi nga xam ne nii boo ko defee ma foon maaw amul lenn lu koy tax a jomm su boobaa ko def ma foon bu dee nag dafa am luy tax du ma nekk ma foon maaw ngir boo ko defee maanaam ba yàqu comme yooyu kom danañ ko jàng si kanam su boobaa doo ko ma def ma foon maaw waaye bu dee maanaam du yàqu dara amul lenn lu ko tere bu baax dañ ko mën a def maf'uul maahu kon jaa zaydun wa amrun mën nga cee nam mu ànd ak amru boobaa nga ne sab ko muy wa amran mu nekk maf'uul maahu mën nga cee nam mu ne da ko àtt ci maanaam ni zayd rek waaye nag moo ci ànd ak yooyu su boobaa moo tax mu ne bind giñ bind ne waaw gi dafay tekki ànd ak dafay génne naxoo comme nga ne jaa dikk na zaydun zaydun wa amrun ak amru isa urida buñ ci nammee majra atfu daw waaye atfu bu dee atfu nga ci namu دو من نيك مفهوم ما هو وقولي سمو وخ مسبوقة دن كوي جيتال تي فعلو ولا خم نعرف فعلو من ما نا فعلو عرف من لو مي سات موجي نياي سات موجي الا فام جيخ ليرال ني بو نيكول اسم دو نيك مفهوم ما هو ليرال ني بو نيكول فد لا غا خني مونو نياك تي واخ جي دو نيك مفهوم ماو ما leeral na bu ko waaw jiitu du nekk ma maaw leeral na waaw gi bu tekkuut ak àndoo du nekk ma foonam maaw ñeenti sàtt leeral na ko ñaari des mooy bu ko fi'lu jiituut wala loo xam ne nii am na xarafi fi'lu ak maanaam fi'lu jiituut du nekk tamit ma foonam maaw kooku bayaanu leeral la li sarti ma maaw ci sartay ma maaw woo moom àndoo moom laa budd du mën a أن يكون هناك مسبوقا ديرين جيتل بفعل تفعله أو بما ولا يقن في نكنة معنى الفعل معنى الفعل وحروفه الحرف فعله فو فعل وكل جيت ولا يقن اسم فاعل لازم يقن معنى فعل الحرف فعله فالاول بن ديك بيغا خن فعل كو جيت كقولك كوم سوى واخ سيرتو دوخنا عندك دخبي اندك الله وخير تعالى كون فاجمو دجل لين amrakum seeni mbir wa shurakaakum ànd ak seeni bokkaarekat yi seeni bokkaare yi seeni xërëm aj moom fenn wa saani ñaareel bi nga xam ni lu yore maanaam fenn ak xarif fenn moo ko jiitu ka xawli ko comme soo ana man saa yéen aji dox laa woon nii la ànd ak dex bi dégg mu ne kon walaa yuusu dëgg na an nas ba nasab fi xawli fi naxwi xawlim kam seen si lu mel ni seen wax kullu rajulin góor gu nekk rek wa dayaatu mu nga ànd bagaasam ku nekk moo ànd ak ànd ay mbiram xam nga dayaatu dañ koo nasab mooy le maanaam maa ngi ya waaye duñ ko tuddee ma folo maaw parce que fexlu jiitu ko la jiitu yi du ismu faayil du ismu mafoon bi sifa du dara خلاف الوتيك السميري نين يعني لول مفول ما ولا كل مم دو ساتار فاو جيتو كو لو خامني امنا حرف فعل ما نا سال لانك نخا يو لم تذكر تدو فعلا فعلو لانك نخا يو لم تذكر تدو فعلا فعلو ولا ما دو تاغي نخا في نيك اسم ما نا فعل ما نا فعل تدو فعلو tuddoo loo xam ne am na maanaa fennu wa kazalika nekk noonu laa yuusu dagan xaasa lii lakk ñeel na la wa abaaki ak sa baay bi nas bi nga nasab abaak xaasa lakka wa abika ay wali abika ngay wax waaye xaasa lakka wa abaaka lii ñeel na la ànd ak sa baay du baax nga def abaak ma xoolum kii lu tax du baax parce que ismu ishaara maanaa fenn la xaasa maanaa muy ushiira ويرد حرف فعله ليه كانوا امن معنى فعله ويرد حرف فعله سوبا لولو تخ من حرف ينك شي فعل بينك كوتشي موم كم سايرون حرف ينك شي سار مو نك شي موم واي هذا مو بن فعل لا لا غير حرف اموت كون سوبا ميم بو يري معنى فعله سو ويرد حرف فعله duñ mën indi ismu gannaaw nasab ko tuddee ko ma fa maaw li na ismul ishaara ndax ismu ishaara wa in kaana dina nekk na fii ci moom maanaam fexlu maanaam fexlu waaye moom lay nekkut fii ci moom xorofu xarafi fexlu maanaam fexlu ci waaye xarafi fexlu ñëwut ci kon su ko defee daal dana indi nag fi nga xam ne mënu fee nekk moom la war a jàng nii boobu eh, beneen texte la mooy waxat tajibu nas bo ngi dem waaye ñu tënk ne ma fon la maawo <coughs> waaye nga xam ne juróom benn yi daje nañ ci bu ci xët du mën nekk ma fon la maawo bu ci njëkk mooy lan mooy ismu lay doon juróom benn yi da ngay tënk bu baax rek ismu su fekkee dangaa gis baat fexlu buñ nasab gannaaw waaw bu ko firee ma folo maaw dañ ko nasab gannaaw an guñ nëbb nëbb gu war gannaaw maay laa taakulu samaka wa tashraba labana wa tasraba ànd ak ngay naan maanaam bul def lii ànd ak lii waaw maa yela waaye duñ ko ma foolam kii boo fekkee it ismu moo ñëw am sax waaye jumla la ni ki jaa zaydun wa shamsu taaliatu jumla boobu jumla xaal la ndax jumla bu ñëw gannaaw maarifa xaal la duma foola maaw bu fekkee ismu la waaye fadla la lay mën a nekk ma foola maaw bu dee ismu la nag te fekk umda la kenn wax ji boo ko daggee wax ji yàqu ki baat boo nga jëfandikoo boo xam ne ñaara ko maa amrun googu moom nekk ma foola maaw dañ ko ànd fu ci Zeydan rek ndax ñoom ñaar mënu ñoo ñàkk ñëw boo daggee am du baax mënoo wax istaraka Zeydan dégg nga dégg nga ismu lay ci jumla bi ñetteel bi mooy waaw da koy jiitu bu ko waaw jiitu ni maa jiitu ko jaa Zeydun maa amrin wala baaguy firi ma beetu ko bayta bi asaasiha yooyu duñ ko firi ma foolan maamu parce que la ko jiitu du waaw maa moo ko jiitu wala baaguy firi ànd ak ñeenteel ba mooy waaw gi foo mu firi maya bu dee waaw gi xarfu atfi la ni ki jaa ahmadu wa ibrahimu dëgga bëgg wax ñoom ñaar ñëpp ñoo ñëw ibrahima doo ko firee ma fol maaw ko firee moom dafa bokk ci nga xam ne daggan nañu firee ko ñaar yëpp jaa Ibrahima jaa Muhammadun wa Ibrahima bu dee ñoo ànd ñëw nga ci nam na ko fi'lu jiitu wala loo xam ne am na xarafi fi'lu ak maanaam fi'lu maanaam ismu faa'il ismu maf'uul léegi surtout woon nii la waa naa wa nii waaye boo ne rajulin wa dayaatoo kooku sumayri moo ko nangu waaye euh, saymari kon laa bëgg wax waaye ñeneen ñi nanguñ ko su ko defee it boo ne xaaza lak wa abaak du mën a nekk ndax ismu ishaara yore na xarafi fàll waaye yorul maanaam fàll dafay beneen yoon ni nga ko tënk def ko ñaari dos rek pour mu gën a leer ñuy jàngal beneen yoon yi nga xam ne ni mënul nekk ma xoolam maaw ak yi ko mën a nekk hada in uridu lislam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh